salaamaaleykum ati. salaamaaleykum. tey ñu nga ñëwaat eh, ci sermon wu bi nga xamante ne tey daf ko daal di consacré ci li ñuy wax keex kersa. tey ban jàngat nga am ci. Euh, di wax euh, salaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu di nuyu euh, peuple sénégalais bi yëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi. ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew yëpp di sant sunu borom moom mi nga xamante ni daaw fii la ñu teewoon ñaan ko ne ko yàlla nañ fekke déwén. mu dimbali ñu ñu fekkee déwén kon ñoo ko ci sant cant goo xamante ni am na fu mu yem am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ñi nga xamante ni yëpp ci diggante bi dañ fee bàyyi ko wéy ji suñu borom di ñaanal ñi tëdd ci lalu hôpital di ñaanal it ñi nga xamante ni caabi daf leen féete ginnaaw di ñaan suñu borom mu feexal leen defal leen tawfeex ba ñu mën a dellu ci seen njaboot di sant yàlla bu baax a baax nag di rawatina ci xutba bi nga xamante ni Cheikh Moustapha bu ibnu sëñ Abdou Khadir indi na ko tey waxtaan ci kersa loo xamante ni nag dafay répondre ci benn crise boo xamante ni dafa am muy crise multiforme multidimensionnelle boo xamante ni am na ci suñu jamono donc say kilifa bu ñu taxawee fàttali li nga xamante ni moom mooy kersa yaakaar naa ne jàng ab leçon bu rëy la boo xamante ni joxe na ko tey ñu war ci jàng nag lu baree baree bari euh, ngir defar ci suñu àdduna tey waaye ngir waajal ci tamit sunu ëllëg euh, li nga xamante ni moom mooy Euh, àllaaxira kon jàpp naa ne euh, xutba bu am solo la qui vient à son comme ni nga xamante noonu la koy defee te ni ñu ko defee ci Masalikul Jinaan tey noonu lañ ko defee ci jumaa yëpp ci biir Sénégal kon di ñaan sunu borom mu may ñu dégg ak topp di ñaanal euh, kilifa diine yi nekk ci biir réew mi yëpp sunu borom dëgëral leen yokku leen tawféex yokku leen aw fan di ñaanal réew mi yëpp tamit dans sa globalité sunu borom def fi jàmm ba nga xamante ni lu mel nii su xewatee dinañ su xewee saa bu ñëwee dinañ ko mën def ci nii ñu ko defee ci jàmm ak salaam kenn ku ci nekk mën a dellu